barke borom Tuuba ñu ci ñeen fukk bi ak benn Sëriñ Tuuba xaada lawoo lawo maxtaara lawoo daana wax njaboot gi lu ngeen fi saytu dulul ak njub ab saay saaya leen ko ëpple te ab saay saay mënta am lu baax te yéen baax ngeen ba dara xewagut siw na Sëriñ Tuuba xaada lawoo lawo maxtaara lawoo mas naa woo Sëriñ Muhammadul Mustafa ak sëriñ abdourahman loo ak sëriñ baara ñang jaabi ak sëriñ fadilu mbàkke radiallahu taala anhum yabal leen ci néegu juróomi ponk ku nekk mu wax la fa ngay toog ni leen wet ga féete penku ni ngeen ma ko fa baal ba mu agsee nuyoo ñu delloo ko mu door dugg ni Mouhamadou Moustapha ñëw ngeen mu ni ko ñëw nanu sëriñ Tuubaa xaadalawo laa maxtaarlawo ni leen xam ngeen li waral jataa bi ñu ni ko déedéet mu di samp juróomi baaraamam ba mu dugg ci suuf bu baax ni leen xam ngeen lii lu ma ci jublu ñu ni ko déedéet mu ni leen dama bëgg waxtu yu juróomi doon seere ci lii may bëgg a wax ak yéen Muhammadu Mustafa defal naa leen ba ba yi tukki ku ngeen fi taseel yéene ko gën baaj sëriñ daam radiallahu taala anhu waxtaan wi bu yemoon foofu sax neex wala dana neex sëriñ tuuba xaada lahoo laahu ni ko dana ko weesu loolu xanaa wenn wayjur mënalu ko doom ja defal naa leen seen tey nekk mooy dàq seen démb loolu xanaa wutkatub alal mënulu ko doom ja defal naa leen seen ruux yooyu saa su tàqalikoog seeni yaram ma tàbbal leen ajjana te ajjana jëmaleen di tàbbal yàlla sunu borom daa bindul ju ko dàq waaye kon ca laa leen di yóbbu ajjana joojee bu ngeen ca duggee du ngeen ca fekk tur wu dàq seen ñaari tur yooy Mustapha xëy na ak Fadilu wala Abdourahman la jublu wax li ci des mooy yàgg fi ak mucc bàyyee naa leen ko bu ngeen ko bàyyee mu set bu ngeen ko bàyyee mu booy siiw na nee na woon ñaanal ñi faatu ak dimbale ñiy dund dana tax a gudd fan waxoon na itam ci ay waxtaanam li tax a mucc wallahu maanaam alam ñu ñëw ci nettalib ñeen fukk bi ak ñett sëriñ tuba xaadalaw law maxtaar la woon nee na na ngeen doon seeni baay te bañ a donn seeni baay xam ngeen nu mu mela ñu ni ko déedéet mu ni daa am dëkk boo xam ni ku mokkal alxuraan lool dafa nekk ña ko mujj xam dañoo jàpp ni amul doom waaye njëkko ña ko xamoon bu yàgg xam nañu ni am na doom waaye day mbërum làmb kooke ba mu faatoo waa dëkk ba daje ñii wax ni am na doom ñii wax ni amul doom ñuy seet ba fekk ko muy bëre ñu ni ko sabaay génn na àdduna danoo bëggoon na ñëw ci kër ga mu soluwaat daa di dikk toog calal ba baayam daan toog fekk na way juram am na ak tiget mooy defukaay téere gu mu takk calal ba mu tiim ko mu di ca teg kaamilub alxuraan saa su xelam nekkee ci alxuraan mu yëkkati jàng ba xolam sedd mu tegaat fa kookee ba mu ñëwee donn na baayam waaye doonul baayam ñàkk ga mu ñàkk ab yar tax na mu doon fuddu ab loxoom mu fel kaamil ba mu tasaaroo ñafa nekk for ko dajale ko jox ko ni ko kii sa way jur moo ko daan saytu lijjanti ko mu nekk ca di lëx-lëxi te mënta fexe ba mu lijjanti ko siiw na wa tilka al amsalu nadribuha linnaasi wa ma yanqiluha illa al aalimun sëriñ bi bu nu seetloo xam ni misaal barina lool ci waxam naka bu nu xoolee alxuraan bari na lool lu muy misaal néew na lu muy wax te du ko misaal ka sarabin bi qiyatin ka masalil kalbi ka masalil ximaari ka anna fi usnayhi waqran aw ka zulmatin fi bahrin lujin daraba allahu masalan fala tadribu lillahi lamsala inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun ak inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'ulatan fama fawqaha wallahu aalamu wa ahkamu wa asdax sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo nee na njaay muy jar te boroom nanguwu caa génne xaqi sunu boroom subhanahu wa taala nanguwu caa dimbale mbokkam day gaaw a bari bu bëree mu jayu bu jayoo jiyal bu jeelee jooy tabbi jahannama waaye ku jébbalu di julli di joxe jenn tur rek mooy payga siiw na am na ak wuute tuuti ak wa ma andi woon moo tax ma andiwaat ko mën naa am muy ñaari waxtaan wala muy wuuteeg lammiñ yi ñuy nettali wallahu alam siiw na ñu ñëw nettali ñeen fukk bi ak juróom sëriñ cumbuleen busa radiallahu taala anhu bi mu ganee adduna sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaara moo bind turwa ci suuf siiw na sëriñ muhammadul mahmud ñang radiallahu taala anhu bi mu ganee adduna sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaara lahoo moo ko noonu wax ni bu leen ko woowe seen turi cosaani wér na lool sëriñ abdu xuddus radiallahu taala anhu sëriñ tuuba xaada lahoo law lahoo moo ko tudde noon nii ak sëriñ abdourahman radiallahu anhu booba ma nga ca yéen ngi njottu itam sëriñ muhammadul habib radiallahu taala anhu sëriñ bi moo ko tudde nii ñooñu ñépp doomi maam ceerno lañu radiallahu anhu wa anhum wallahu alam ñu ci nettalim ñeen fukki bi ak juróom ñett ki doon jàngal sëriñ cumuleen radiallahu taala anu mas naa ñëw ci sëriñ tuuba xaada lawo law moxtaar loo mu ni ko ana sama doom ja mu ni ko ma nga fa ba mu ko andee ci sëriñ bi mu laaj ko fu mu toll mu ni ko aymim ayin siin xoof sëriñ bi ni ko man nga koo tari mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko taril muy tari ba agsi ci wa innaka la tahdi إلى صراط مستقيم Sëriñ Tuuba xaadalahu llahu ni almuxtaar loo ni ko foofu doy naa yam jox ko ab kaamil ni ko boo demee nga jàng ci te bind beneen andi ko wer na Sëriñ Tuuba xaadalahu llahu maxtaar wax Sëriñ Basiiru doomam radiallahu taala anu ba mu noppee ci alxuraan ni demal ca ibra bint silla radiallahu taala anu barkeelu ci alxuraanam jooje ndax bi ma saa di jox mbootum alxuraan ci géej gi saa xel dani yar ci moom siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo daana tàmbuli ab kaamil ni ko nii bëgg nga binde ko wala mu tàmbali ab maas ni ko nii bëgg nga maase ko ko siiw na koko moy serigne ibrahim mima tuddon radiyallahu anhu wallahu a'lam serigne tiaya ko radiyallahu ta'ala anhu neena bimi jeblu ci serigne touba khadalahu la makhtar lahu da ñaan lu yàgg tifli ni ko nangul nan la ko ana madlamin mu ni ko maa ngi nii sëriñ bi ni ko ànd la kii lu ngeen di liggéey mu di ca liggéey te toog fa yéen sëriñ bi ni ko yow xam nga ko sëriñ caayaa ko lay wax ni ko xam nga ko mu ni ko déedéet bi ni ko bu ngeen àggee bu ngeen waxtaanee da ngeen xamante fekk na ñoo bokk lépp wér na lool am na ku daan jàngal sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo bi mu faatoo sëriñ bi jëlilu rakkam ba mu ñëwee taxul mu man ko sëriñ bi di ko jubbanti ba mu mel na mu bëgg wér na njàngum yëkkati lay wax ñu ñu ci juróom fukk bi ak ñett sëriñ xam xammar ak soxna xawa saar radiallahu taala anuma sëriñ tuuba xaada lawoo law maxtaar lawoo daana leen yónni ci góor ñi ak jigéen ñi wér na sëriñ tuuba xaada lawoo law maxtaar lawoo nee na li yàlla bind fii la ko teg loxoom lay wax tubaab bi nee nañu ñooma yóbbu wax nañu dëgg waaye fekk na ma koy wut lu yàgg te gisuma ko saa boroom daa am lu gën lépp bi mu waxee ñu baax ñeeg yonente yépp lii ku ko am yaay doon kilifa ñépp ma ko doon wut xamuma fu mu nekk fekk jigéena ma lool wér na ba tey lii mel na ni ci nettali bi la bokk li tax ma koy teqale dama yaakaar ni am na lu dox ci diggante bi bismillah sëriñ bi nee na ma toog Mbàkke Kajoor silmaxa jóob ñëw ni ma dama bëgg sama digg ak tubaab yi nga wax ci ma ni ko ñu bokkul ak bëgg danañu masa tase mu ni ma boo mënul lool yi damay jébbalu ma ni ko boo jébbaloo ma dindile laak yaar loo ci fa baax na danga bëgg ku la tas tasar takkaat la am ku la coot mu ne ma xam naa kaw gi waaye xamuma biir gi ma leeral ko ko ci néeg bu waaf te ñu bëgg mu jugaat manes ne ko taxawalaat defaraat ko manes naa wut yeneen bant defar ko muy baneen néeg nanguwul tas tasar ma ne ko kon ñu ñu ñuut la bi ma waxee moom ba noppi sayyiduna jibril alayhi salaam ni ma ki nga doon waxal lëf xew na ci tas tasar yaa ko génne ci dencukaayu buur te xajatu ci ki nga doon jox bañ na te yàq daganul mu ne ko kon ma yanu ko wallahu alam day mel ni sëriñ bi ci gàttal képp ku ko jox sa bopp fawu mu setal la léeg-léeg nag am na ñoo xam ni dañu takk takk goo xam ni dana daj ci ñoom lu metti war na ñoo xam ne sëriñ bi dimbali ñëpp ak xettali ñëpp moo waral muy dem ci géej gi am na itam ay sew-sew yoo xam ni bu nu ko bëggee leeral du nu ko xam li nuy jëriñ mooy nu xam ni moo dimbale silmaxa jóob am na itam coona yu metti ci dimbali gi te mel na ni bokk na ci sababi tukki bi ni mu jokkaloo ci nettali bi yal na nu yàlla saxal ci sopp sëriñ bi ak yal ko wallahu alam léeg-léeg nag yenn baati olof yi noonu ñu koy jànge ku ko dégg te dégg ci benn jumte nga gis ci lu gën a leeraat mën ngaa jàpp loolu te bu soobee yàlla it boo ñu woowee ci maanaam numéro bii ma lay jox bu soobee yàlla danañ ko dabwaat ci yeneen téere yi ci topp gën ko caa leeral njuumte yooyu da ngay def 77 huit cent trente sept quarante sept soixante deux ñu ñëw kon ci nettali ba tey juróom fukk bi ak juróom am na ku masa siyaare Sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaar lawoo ni ko dama ragalum ñàkk sëriñ bi ni ko dana digal loo xam ni boo ko defee dootoo ñàkk mukk loo amati joxe ko ngir yàlla wirna lool ngir yàlla subhanahu wa fi mu ne boo ko dul joxe ngir yàlla itam du tee day dolli ko waaye doo am tuyaaba wallahu alam am na bis ñu rey aw nag ca penc ma Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaaralowoo wax Cheikh Ibra Faal radiallahu taala anhu demal dagg la ci gën a baax andil ma mu ne wut ndab lu set def ca xol ba andil ko yeneen jamono mu waxaat ko lu mel nii ci aw nag wu ñu rayoon ni ko demal dagg la ca gën a bon andil ma mu dem fopp ndab lu taq def ca ba andil ko sëriñ bi ni ko Ibra Faal noo nii la kii rek mooy baax mooy bon siiw na lii mooy li mu wax ni fa in turit islaaha aw saalin li waci man liya idaahu qamaa fa aslihi alqalba bila tadniisi hatta tura billahi saataniisi sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo mas naa wan sëriñ mbàkke bu sa radiallahu taala anu ak garab digal ko fa muy dëkke diggam ak fii ci jumaa ji nekk tol ni diggante garab ga ak fi jumaa ji nekk wér na am na naar bu mas wax sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo taalibe yi dañuy wax ni sa xaside yi ñoo gën alxuraan sëriñ bi ni ko waxewuma ko noonu dama wax ni ñoo bokk fu ñu bàyyi ko te yéen moo gën ci yéen alxuraan siiw na ba tey lii ci la ànd li tax ma koy teqale dama yaakaar ni ki doon nettali moo koy leerale waxi sëriñ bi alquran fasu buur la fasu buur am ko taxul nga am wuddu wa ca war wala nga am gafaka ga ca war mbaa nga dib gawar man koo war xam fa mu sama xasida yi fas wu dër la wu ñu wulli ba mu mokk ku jàll ci seen ginnaaw ñu yóbbu la ba fa jëm wallahu alam lii dama fàttali hadis boobee yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam wax ni bari na kuy jàng alxuraan alxuraan ji di ko rëbb wallahu alam